pour waajal màggal gi ak yàpp bu neex yàpp bu nooy yàpp boo dalalee say gan moo xam Dakar ngi nekk wala Touba jokkool ak numéro yi lépp loo soxla ci yàpp copine lépp loo soxla ci yàpp naat ñii ñoo la koy jaay muy yàpp bu mucc ayib macha allah wooteel ci 77 646 97 09. de football après jël ay vidéo di naan way xawma lan euh, Sénégal yëpp ñu ngi koy sonkorisé ay waxi caaxaan la. sama waay xaw kañ nga daa wax muy pertinent mais tay moom bokku ci. nga sa façon discours yi dañoo bëgg nga dencal ñu ko nga téye ko c'est pas xam nga lu ñu dal fexee boolewoo jàppoo lu ñu mën a dégager Macky Sall ci réew lépp lu koy déranger ñu sax ci lépp lu Macky Sall bëgg ñun patriotes yi ñun loolu la bañ lépp lu mu bañ ñun loolu la bëgg même bu dee sax du suñu intérêt foofu la réew mi toll sa discours yi nii ngay def di génn ay théorème système de parler téeku ba ñu lijjanti réew mi nga doog a indi nag say question de morale dégg en tant journaliste guerre médiatique nga xam ne ni mu mel waaw communication waaw nga taxaw fii di naan ay jëmalewul réew mi kanam lan moo jëmale réew mi kanam boo demee ba amuloo wax da ngay ñuy wax nag day tax nit di xalam ba ci yàgg mu toog fay riiti waaw patriote yi nag fi ngeen ko jàpp foofu la bu leen may jàmm fu ñu génn yuuxoo leen sonko gi ñuy bañ a nañu koy dégg guddi ak bëccëg subaak ngoon ci seen nopp yi seen xol yi dagg foofu la bu kenn découragé loo bu fekkee ne nag dafa am leneen loo bugg a wax te ñemewoo ko ñu ngi lay xaar xeex bii nag duñu ci tay képp ku ñu ciy découragé loo yaa ñu ciy encouragé patriote yi fi ngeen ko jàpp foofu la man xeex bii moo gën a efficace ci mus a def sonkorise leen fépp bu ñu am jàmm ci ngénte yéeg dëj yéeg xew yi fu ñu mën a dem rek Sonko ak libéré Sonko Macky Sall turu Sonko bi nafa jax moom la ñuy a dégg loolu moo leen di jëfurloo foofu la fi ngeen ko jàpp foofu la ku ciy takk sax jabar jëli séet ànd leen ak moom jëli séet ba Sonko Sonko ji mel ni tulak